déglu leen mama delooti bàkk jàmbaar jàmbaar wuute naa gaay say mboog dugg ci baar mama delooti bàkk jàmbaar suñ falilu wuute naa gaay say mboog wayoon naa ko ca aat yee ñu ma yaa daan ma dellu wayaat ko ko ba way wi man kamay bëgg way càllalaam ga daafoor ga daafoor daafoor baayu moominato it mër ma faw xa dëkkutoor mbër ma wàcc bu soobee diriiri diiwaan upp na lamb gi si fallu moo di naanaan ma wàcc bu soobee diriiri diiwaan diiwaan upp na lamb gi si fallu moo di waa Mbusoo be sërif lañ asan di seen maam. waa Mbàkke bi sërif Mustapha di seen waa Mbàkke bi sërif Mustapha di seen moom kasun ci aw rajab la ñëw di saf weer done taaxala sëñ fallu cër ba daafoo ani bireet fallu mbàkke mooy lii ka fekk suukar ana sa pay sëriñ fallu daa di jaxle sëñ fallu moom du ngoolo tey ma wax la ka doon fallu mat maam siptu Seex Ibrahima andiram ci kër doom ma wax alaaji baara di andiram ci Seex Abol Baraka mooy ka doon di Seex Ibra Faal mamam jamo di yoroom bay faal defal nii ci sowru faal sowru faal sowru faal pas-pasam ba mu am noppi rek la lambo seex aboy sunu tiitër ni ngor la lambo yal na sax dinu jiite ci barke baayam baayam yal na sax dinu jiite ci barke baayam baayam yal na sax dinu jiite ci barke baayam baayam moo njaboot sa jéeg ñi sopp yal na soxna ami sex neel nii sa loxo ma dal borom amin ci barke tay bata ki Tuuba Tuuba ak barke njol maka borom Tuuba tay bata tay bata tay bata tay Tuuba ati na jox na Serigne Bamba ndam te tas na sant yàlla di bakkoon war faaw nu bàkku jox na sëriñ Bamba lambu jàmm sant yàlla bakkoon war faaw nu bàkku diine ji amutoon waaju mel ni Ahmadu Bamba dootu am ku ni mel ndax kemam góor gu ko sàkk diine ji amuloon mel ni Ahmadu Bamba dootu am ku ni mel burdu ko dafa ràppoon tilim taqi taxee ñoon xat ñagas bari xaaxam sëriñ bey ku ko xaake diine dafa ràppoon tilim taqi taxee ñoon xat ku sopp soxna ami seex na lii sa loxo say ku bamba kuraatum kemam taxlu bi sëriñ yàlla mooy ki ko jiital ku koy bañ di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi saahibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba naal yi nga xam ne moom la sumbal borom Touba yëpp mu àggale ko te ñu fekke ko noonu yi lañ koy ñaanal ki nga xam ne mooy suñu buntu muy cheikh Abul Baraka ak mbooleeg njabootuk cheikh Mouhamadul Fadel gépp niñ ko ñaanal sëñ Muntaxa rek lañ koy ñaanal di yëkkati kàddu yoo xam ne ni day kàddu yu ndigal jógee ci seex al alaaji Mouhamadul Fadel mi nga xam ne. mooy suñu kilifa di suñu baay comme ñu ma ko daan waxee rek ndax ay nit ku leen woo ba ñëw war nga leen a wax la ngeen la ngeen leen doon doyee loolu rek moo tax ñu yëkkati suñuy kàddu waaye kàddu yii fi suñu alaaj njaay yëkkati léegi doyoon na sëkk doy na sëkk matale na lii nag li ko waral lenn képp la muy li alaaj njaay doon wax fi lañ ko teg muy ndigalul jur lañ ci am ndax bis bii suñu waajur daana ko def jamonoy 98 wala 97 def na ko ñetti yoon yoo xam ne nii moo ko defal boppam wala ñeent sëñ Abu Cheikh Mouhamadul Fadal mii daa ko gane si ca kër ga ci at yooyu mu koy wootee di ko def ca këram ba mu ko defee ay at nag la ko bàyyi daal di bind aw kayit mu ab bataaxal bàyyi ko fi ne bis bii bu ñëwatee mooy sama bis loolu la bind ci kayit wi na ngeen ma ci santale yàlla ak Cheikh Mouhamadul faadal ndax ci la ma sëriñ Fallu joxe woon dëkk bii di Touba. kon ñun lii ñuy def mën nañ ne faratale la ci ñun ndigalul jur lañ ci am Alaaji Njaay wax na ko léegi wa bil waalidayni ihsaanan te nit lu muy def rek te tëgg ko ci ndigal mën na caa am jafe-jafe kon ñun lii ñuy def sañu ñu koo bàyyi ndax suñu jur moo ñu ko digal ndigal loolu mu ko digal nag li tax mu di ko sant mooy moom ci daara ji la nekkoon moom Alaaji Mor Gueye njëkkoon naa ñëw ci daara ji nekk kër nijaayam sëriñ Mbay Sàll nijaayam la ndax benn gay mi jur soxna benn gay mi jur sëñ Mbay Sàll moo ko alaaji Moor ñoo bokk lépp sëñ Mari Sàll nijaayam la biñ ko njëkkee indi ci daara ji bi màggal gi jàllee daa ne daa gan ñi daal di dellu Dakaaru ndax booba bëggutoon a toog ci daara fekk juróom sax moo njëkk a nekk ci daara ji muy ku ñuy wax sëriñ Modou Gueye boo demee ci leetar boobu ñu bind ñeen fukki ñooñu xam ne ñoo njëkk topp sëñ Fallu te sëñ Touba boole woon leen ak Cheikh Mahamadul faadal ngir ñu sanc Ndindi 1913 soo demee da nga ca fekk waaye juróom woowu di sëñ Modou Gueye moom la tuddee Modou Gueye mii ci ñeen fukk yooyu njëkk topp seex seex seex sëñ Fallu ci la ci la bokk waaye juróom ba mu wàccee itam moom waay juróom yëmu ca ba mu demee ci dëkk ba dafa jël ab taawam yónnee ko ci daara ji bi ñëwee ñu ne dafa ndawee na dellu ñu delloo ko muy sëriñ Cheikh Gueye ba de ba déwén sa ñu indi ko bi ko indee ndawe gi wàññeekuwul. ñu daan ne nañ ko dénk kon soxna awa buso ngir ak ndawee dongo yu ndaw yi nga xam ne ay dongo yu ndaw lan soxna awa buso leen moo leen lan boole mu leen di laddante ba mu fa nekkee ab diir nag ñu indi alaaji moor mii ba màggal ga jotee màggal gi jeex mu ànd ak gan ñi dem Dakar wax nañu ne 1946 la loolu loolu 1946 la waaye bi Seex Mouhamadul Fadal toggee ci xilaafa gi 1945 ci at mu njëkk mi rek tournée bi mu njëkk a def ndakaaru la bi mu demee di def tournée bi ñuy nuyoo ba way juróom moom ñëw nuyoo muy soxna aram njuga mu ne ko ana sama ngóor sa mu ne ko mi ngi Dakar gii sax de daa ñëw di ne day liggéey si mu ne ko fexeel ba indil ma ko fii rek suba booba kër ajaratu aram jiyeen la nekkoon ca ndakaaru doon commencé nee na commerce bu xaw a dox sax nga xam ne boobu continué woon mën naa doon loolu ñuy wax milliardaire waaye li may wax li Alaa Njaay ay eh, doon wax léegi ne waay jur lu am solo la ci doom ndax lu nit di am sa waay la ko sàkkalu man na faa nekk continuer de commerce mën naa doon milliardaire waaye gis nañ milliardaire bu perte te lii mu am nii moo gën milliardaire ndax li mu am du jaax muy sëriñ bi bi mu xëyee waaye juróom indi ko ne ko sa ngóor saa ngi nii mu daal di ab loxoom ne ko mi ngi nii mu ne ko waaw mu ne ko ana suñ mët mbay tariyaax suñ suñ suñ suñ mën mbay tariyaax moo dëkk mbal gii ne ko kii dénk naa la ko demal nga ànd ak moom ba njaareem su ma dëppee ñu ànd dem Touba. sëñ ba sëñ man sëñ man mbay tariyaal ànd ak moom dugg saxaar wàcc njaareem ba sëñ bi tourné mat mu ñu ñëw fekk ko njaareem andi andi su andi mu dem ci daara ji ngir liggéeyal tërbiyewu ndax dafa am loo xam ne nii dara ma yow ko maanaam ño ñaq rek a koy maye ndax sëñ Tuubaa lii mu yor alal yàlla la te dafa iñaanul moom sëñ Tuubaa waxoon na woote woon na cëceyeen ne lii ma yor ak ndoomeel ma yow ko ak njarbaat ma ko ku ko eh, ak ak ak ak mageel ak ak mageel mayul mayoo ko boobu maam Thierno nga ca moom lay wax sëñ ma roqee Bousso Cheikh Massamba ak Cheikh Mamadou Fadal ak ak sëñ Fallou ci ci la sëñ Fallou bindoon bayitam yooyu si yooyu ngeen dégg yaa ayuha cheikhun nafishu murtaja yaa fatihan maa xablu kaana murtaja bixtu bunuutiya bil irada lakum li kay oxsa bi xarxaada li mu wooyee sëñ Tuubaa moo gën ak yow sëriñ bu gànjoro bi maa ngi ñaan lii ñuy wax ak ndoomeel lii ñuy wax ne ak ak ak ndoomeel la jaay naa ko ku jaay dara da nga am njëg njëg googu defaat naa ko addee di ko bindi bataaxal naan ko dama laa bëgg léegi ci ci loolu ma doon wax rek ci la wax la ko waxee ne yaa fatihan maa xablu kaana murtaja yaa mooy yow yow yaa tijji bunt yañ daan jaar di dem ci yàlla ndax xeetu dem ci yàlla dafa amoon ay bunt yu bëri yoo xam ginnaaw sëriñ bi rek lañ ko tijjiwaat ginnaaw yonent bi lañ ko gëjoon a gis muy dem mel ne tërbiya lu mel ne tërbiya loolu dafa tëju woon ak xidma mooy xidma liggéey boo xam ne nii da koy liggéey te duñ la fay fi loolu ñi ñiy jëfandikoo xel duñ ko mën a nangu sëñ Fallou dane sëñ Touba yow yaa tijji bunt yooyee de di bind sëñ Touba naan ko dama laa bëggal kon liggéey bu mënoon a ñàkk li ma ci jublu rek mooy sëñ Fallou moomu sëñ Touba du ko tegtal loolu ba muy aw ci yoon woowa ba ne ko damaa bëgg ci lii nga amee loolo mu amee nag la sëñ Touba jox sëñ Fallou mu yore ko loolu la alaaji Mor doon sàkku ci Cheikh Mahamadul Fadal bi mu ñëwee itam daara ji mu njëkk a jaar ñànka lañ koy wax mu remplace fa Euh, jëwrin ba mu ñëwee rek la jëwrin jooju wàcc bàyyi alaaji mbeng mii di nekk ci kër Sëriñ Abibu moo doonoon jëwrin njànk booba moom la remplace ca daara jooja nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa li ñuy wax ne jaamu yàlla ak liggéey alaaji Mor nettali nañu ci diggante boobu ne amoon na waxtu koor woo xam ne dong yu bari dañ daan bañ a woor waaye moom bi mu ñëwee dafa woor sëñ bi nag dañ koo xibaar ne ko dong yi daal dañuy ne ci tool yi te duñ woor sëñ bi tàng jër jóge fi benn bis dafa am yéen boo xam ci digg tool bi la ko defoon daal di dindi lu sàkket yëpp ngir mën a jàkkaarloog nit ñi ne nañ ko ku mënta ku mënta boole koor gi ak woor gi liggéey bi ak koor gi na bàyyi liggéey bi tey def ndigalu yàlla li moom keroog yàlla dogal mu woor nee na bis boobu la ko sëñ Fallu wax ne njëkk a waaw góor muy wommat sëñ Fallu ko waaw góor ginnaaw bi tamit nekk na fi aliya nekkaat na it euh, jàjji faal gii ci ci jumaa ji mooy ndox mi fi fi njëkk a jëlee ndox ci Touba ngir liggéeyal ci jumaa yi Sëñ Touba bi te jumaa ji ñi ci ñi ci liggéey ñëpp kenn du ci dem safara loolu Sëñ Touba ko bind wax wax fir li man banaw binaaha rafiq loolu moom jeex na te bokk na ca ndox mi nga xam ne moo ñoo ko ñoo moom lañ tabaxee jumaa ji moom moo ko doon wattu te boobu alaaji Mouhamadul Amin Baara moom lañ wax ne tubaab bi dafee indi ay machines yu ànd ak ay carapines tubaab bi ne il faut ñu teg fi koo xam ne nii daf koy saytu ndax am matériel la te mënees na koo jël alaaj baaral moom la moom moo wax sëñ Fallu ne xam naa koo xam ne ni de man xam naa ne mën na ko ah, fiir wi dan am na fiir wi te am na kàttan gi te it ñeme na ragalut dem ci daara ja jëli ko mu ñëw indi ko sëñ Fallu daal ko koy jox lu am xorom sax da dees na ko cay nettali sëñ Seexum sëñ Saaliw nettali na ko Modou Gueye mii ne ko ba sa bàyyi di jàppanteeg tubaab ba maa ko fekk kon loolu lu wér la ne ko ndax dane ko woon boo ñëwee léegi man du ma nelaw guddi gi damay garder yëf yi yow boo ñëwee fajar gi rek deema teela ya xam nga tubaab dafa xaw a saay-saay ñëw au lieu mu yeeku mais da ko da ko dóoru woo xam ne xam naa mu jóg rek moom ñu nekk ci rek ba ñëpp ñëw nag ne ko yow nag lañ mës a gis koo xam day xeexaw ko tubaab waaw loolu day tegtal na ko amoon fulla la waaye ko amoon aw fiit la ci ci ci ci ci ndigali sëñ bi sëñ seexum sëñ saaliw nett na ko moo duggee ne ba man mii maa ko fekk sëñ seex ba mu fa jógee itam ci la ci la ci la ci la wàcc ci daara ji dugg ci mbirum commerce nekk yor boutique ci kër sëñ soxna Sooda nee na bitig bi nag commencé woon naa dox lool moo ñu ko wax ba ma jënd ab minicar kaarlu ko ba bay bëgg a beneen alaaji daam dara daraame moo ko defaral xam nga loolu kon mi ngi doon dox ci jamono yooyu ko mën a jënd oto ci jamono yooyu sab liggéey mi ngi dox liggéey na yeneen liggéey yu bëree bëree bëree ci barabu Cheikh Mouhamadul Fadal bii wax na ne bis bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadal wàccee ab liggéey la njëkk a dem di sut wër sëñ Fallu suturaal ko moo ko fa def ndax bitig boobu mu amoon ci kër sëñ Ousmane Bousso dafa fekkoon mu sansé ko ab baraagub senga fa nekkoon mu jël yi baraag booba ñëw ñu këppal ko Cheikh Mahmoudul Fadal baraag baraag boobu fi ne ci xaayarali nekkoon fi jàkka ji ne boo demee mi ngi tey jii ci kër biir kër sëñ jilim sëñ Modou Bousso Dieng boo duggee da gis baraag booba loolu daana wax ne étage yi ma am yëpp moo ma ko may daana euh, li Alaaji Njaay doon wax léegi mbokk yi xam ne ñoom la bokkaloon Cheikh Mahmoudul Fadal muy ñi nga xam ne ñoom la bokkoon di tarbiya ñoom la defoon ay nawle ñoom la defoon wéttal lu mu amoon ñoom la koy jox ñoom képp nag la bëggoon di di waxtaanal tamit ñoom la bëggoon di gis bi bu set am na ci ñoo xam ne nii daf leen a sàkkaloon weer jot lu leen di jox weer woo xam ne nii weer jot am na ci koo xam ne nii dane li mu koy jox fi mu ko moom moom moom rek la mos a gis ku gor ab kilomètre bu carré ci Touba ci dongo yi am na ci ñoo xam ne nii a saxaloon ci lim li ko yàlla wërsëg bu génnee li muy dunde ba noppi da leen a saxaral kenn ku ne aw weer ñoom ñoom ñooñu nga xam ne ñoom la bokkal ak Cheikh Mahamadul Fadal muy ñun ñii fi toog bis bi nag li tax mu demee nii mooy dañ ko jàppoon a ñaan rek ba ngoon ñu ñu ñu kii waxuñu ko kenn yàlla xam ne ne ñii fi nekk ñëpp benn lañ rek ñun ñii te ñi ñu ko wax ñëpp dañoo bàyyi ba ñu suba rek ñu woo leen téléphone ndax xam ne ne ñoo bokk bàyyi ndax suñu waay juree ñoo bokk nekk ci keppaaru Cheikh Mahamadul Fadal am nañ loo xam ne nag kenn amu ko ñoom lañ amoon loo xam ne nii faat na te kenn mënatu ko am te loola warees na cee jàng ay bind ñun ñi nga xam ne ñoo fi des te moom ku bëggoon lii la moom alaaji Mor ñun ñu bennoo nekk benn maa ngi fàttaliku rek bi mu nekkee ci tawat ji bi ma ñëwee ci hôpital bi ci suur yu mujj yi nga xam ne dañu wax naan xam na dara xamul dara bi ma duggee damaa dugg fekk ndey bu sum mii toog ma dugg toog noonu rek mu ne ma waayewu yow mii da nga dul nuyu kii ma ne ko ah waaw daat kuy nuyu mu ne ma waaw fu ngeen fekkenteete dee leen nuyoo loolu dong ngeen fi dese wallaahi laxasim loolu la ma wax nga xam ne moom lii neexoon na ko lool lool lool ñoo ngi ñaan nag lépp lu luñ fi jàng ci alxuraan ak xasida yàlla jotale ko ci yool bi moo moo mboolem mbokkam yam àndaloon di liggéeyal Cheikh Mamadou Fadal yàlla nañ ci dajee ngërëmam këram timit pay la woon maam pay li ñuy wax pay muy fu ñuy àttee ay nit ndax ab àttekat wër wër wërta wërta wërta wërta jubadi wërta nës nësal wërta jël dara ci suuf te moom ñett yooyu yëpp daf ko fexoon ba am ci autonomie kenn moomu ko woon maam kenn moomu ko woon kenn mënu koo def looloo xam ne nii tamit maanaam ñaari malaayika yi nga xam ne ñoo nekk say mbagg danañ ko dañ ko gis ndax nit mën naa def loo xam nit ñi duñ ko gis waaye man mënta def loo ne yàlla du ko de du ko gis ndax nit ku ne yàlla sàkkal na la ci say mbagg ñaari malaayika yoo xam ne nii lépp looy def ñi ngi koy gis muy kiraaman kaati kaatibiin mun maa tafaaluun kenn ku ne mën ngaa mën ngaa nëbbu li ngay def waaye mënoo ko nëbb yàlla ndax am na ñoo xam ne ñoo ñoo raw ay caméra surveillée te lépp loo def ñu ngi koy gis daana atte ci xeetu atte attin woo xam ne nii day am hikma ndax nit mën naa tooñ nga atte ko bañ koo tegi daan mu jóge ca normal am na ko ko doon nettali sëñ Fallou bi mu nelawee mi ne nga moom bis boobu la mos a ñëw ci sarax ne seen bàyyi kat dafa am lu ma mos a defal ca Touba ju jëkk ja nga xam ne ñëpp xamante woon bokkut ak léegi nag daa am ab xaalis bu réeroon nee na ma for ko jël ca ñetti téeméer sànni la ca des daa di lekk la ca des nee na bi ma ko lekkee ba xaalis bi ñetti téeméeri yi waa jeex borom yëg ko ñu boole ko ne ne ko moo for sa xaalis bi mu ñëw kalaame ko sa ndax këram lañ daan kalaamee ñi tooñ bi mu ñëwee ñu ne moo ko for mu ñëw dugg ak moom ci néeg bi ne ko wax ma dëgg waa ji ko maa ko for waaye ñetti téeméer la jël sànni la ca des mu woo bàyyi waa ji ba mu ñëw. mu ne ko xaalis bi nu mu tolloon wàññi lu toll noonu jox ko góor gi ne ko da koy def sa poos bu waa ji ñëwee dangay ngay dal ci sa kaw doom ba waa ji bëgg nga ne ko ñaata la mu ne la ñaata la nga dindi xaalis ba jox ko nga xam ne waa ji keroog la lañ ñun bi mu nelawee lañ mos dégg ne ñun lii la lii lii la ñu defal waaw lii la ñu defal loolu maanaam xikma la ak xerañte la ci ku ku koo xam ne di dañ laa jiitaloo bis bi nag li tax ñu def ko nii mooy ren kenn ku ne xam ne bari na xew-xew yu bëri yu xew yoo xam ne ni xew na ndax fee ñu dëkkoon dañ ko soppi di ko defaraat ngir di ko yeesal ngir mu gën a dëppoo ak jamono looloo tax ñu indi ko ci suñ kër gi nga xam ne mooy suñ baay di alaaji Mouhamadul Fadal ñu ne woon nañ wàccee kaamil rek ba déwén waaye mm, boroom ngërëmul yàlla boo koy jëfal xamal fooy commencé waaye bul xam fooy yam ginnaw tàkk tàkkusaan rek lañ bëggoon mu yam ko waaye te waxuñu ko kenn lii fi nekk mooy ay mbokk rek ñoo xam ñoo bokk lépp moo tax ñu mu demee nii kon ñoo ngi eh, sant ñëpp di gërëm ñëpp bokk yi ak dëkkandoo yi ak ñii nga xam ne benn lañ si Yaba Caam mii di mag magum taalibe moo xam ne nii lépp lu xew ci kër gi nii la koy defee ñëw toog ànd kook ñun ba mu jeex ak sëñ Modou Gise ak sëñ Njaga Karame ak sëñ Modou Mbay jàngkatub kër gi ak sëñ Njàpp Mbay ak sëñ Modou Mbay mais mu Mbay Afe nga xam ne mooy xelifa Mbay Afe di ko baax a baax di nit ku yiw ku neex a jaxasool koo xam ne nii nit ku baax a baax la nit ku amuk taalibe la ak suñ buso jaww ak kër gi nga xam ne suñ buso mii nga xam ne moom waaye juram ñoo bokk lépp mu abal ñu ubbi këram ñu yendu fa ba ngoon ak mboolem bokk yi ñi ma ci tudd doon ñëpp suñ fàllu mii tudd na leen ndax ak suñ Ibrahima Jaw ku lim da nga matal waaye ñépp xam nañ li tax ñuy jëf ñoo ngi ñaan ñu ñu ñu ñu ñu teewaat fi déwét ak suñ Daam Jaw suñ daam jaw bëgg jeex moom sëñ bay jaw kokki moom it moom sëñ Fallou waaw ñoo ñoo ñoo ngi koy nuyu moom baax di ko siyaare moo tax képp ku ko dégg léegi nii rek fii ma toog la ma sooy bu mu si ñëpp du fa daal di woo ne ma bis bi lu tax waxu ñu ko yéen ñun dañoo bokk lépp da ñu ko waroon a wax ma ne ko yàlla xam ne ne waxuñu ko kenn waxuñu ko kenn ndax mu ne ma waaye bu ngeen ko waxut kenn ndax kër gaa ngi nii da ngeen ñu ko war a wax ñu ñëw ñoo ngi sant bu baax sëñ mbay mii nga xam ne it moo yore wàllum caméra bi dañ koo woo rek ne ko ñëwal mu ñëw loolu nag ak nangoom la moo jiitee site boobu ñuy wax 24 actu ñoo ngi ñaan yàlla sàmm ko te aar ko may ko ba fi mu bëgg site ba àgg fa lépp mu àgg fa ci daraje Cheikh Mahamadul Fadal di sant borom rajo yi bu baax a baax ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñëpp teew nañ rek di wax euh, ñi nekkoon ci waañ yi ak sët yéeg yëpp comme ni ko suñ Fallou Niang mi waxee rek nañ yokk a góorgóorlu te xam ne seen maam jëf na jëf na waaw jaajëf nag gàtt na waaye duñ ko wax ku jëfut dara jaajëf gàtt na waaye duñ ko wax ku jëfut dara ñoo ngi dénk suñ bopp di dénk mbooleem ñiñ sañ a dénk ñu gën a sàmm suñu taalibe di ñaanal bu baax suñu waajur wii nga xam ne moo ñëwoon toog fii di mi soxna Mbène suñ borom sàmm ko te may ko ak wér ndax moom lañ fi dese di ñaanal soxna Naar Ndiaye ak soxna Ami Cheikh ak mbooleem way ak soxna Seyna bu Guèye ak mbooleem way dawlu ya yàlla yërëm leen te jéggal leen ci barkeb Cheikh Mahamadul Fadal euh, wax ji dañ ko waaju doon moo tax dañuy dañuy làmbute di wax rek ak sëñ Sayer Guèye moom it noonu ma ko waxee woon Baye Sayer euh, ni ni ni Alaaji Mor nekke woon ci daara ji euh, Baye Cheikh Guèye nekke ko ci daara ji moom it noonu la nekkoon ci daara ji te alaaji moor yemutoon ci nekk ci daara ji ba wàcc mbooleem kum jur dalaa jël joxaat la ci njabootu Cheikh Mahmadul Fadal gi ginnaaw ba ñoom ñëpp daje mu jëlaat ci bundu kër Sëñ Tuubaa yi kenn ku ne mu yóbbu fa mu yóbbu fa kenn di xool Sëñ Tuubaa ci yow loolu lo loolu loolu maanaam lu rëy la mooy mooy mooy làmbu Sëñ Tuubaa fépp rek ndax Sëñ Fallu dana wax nan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ndax kenn joxut yàlla loxo te yàlla amut lu ko gënal nit ñi fi ne nii nañu bàyyi xel bu baax taalibe yi ndax àdduna bi taalibe yi képp a fi nekk jumaa jii fi mu ne li muy rëy rëy rëy rëy dong yaa ko fi def dong yee ko fi def nañ leen gën a fonk te xam ne dong yi dong nga fi nekk lépp lu fi taxaw rek ñooma te ñoom dey ñu yomb a jubal lañ ndax ñoom ku leen nax ci sëñ Tuubaa ñu nangu sëñ euh, Fallu euh, dadaal daan wax naan taalibe yi buñ alali baadoo la koo xam ne nii bu juree jox la bu boo ko laajee mu jox la bu toogee ci kaw nga toog ci suuf la banque tànk bëngutum xel la banque tànk bëngutum bëngutum xel nañ leen fonk te xam ne ay nawle lañ taalibe yi ak sëriñ sëriñ si moom taalibe yi doo ngay seen nawle ndax bu ëpp ab taalibe amut ab sëriñ do am te baatub taalibe ñi ko nit ñi safantale dañoo xamul lu muy tekki taalib mooy kuy sàkku dara xanaa ñëpp a sàkku sàkkoo jëm ci yàlla ndax suñ tubaab dane an ku muridu laa la wat ku nama jëm ci yàlla baat bi nga xam ne mooy am ab taalibe mooy ku ab talab mooy ku sàkkoo ku sàkku ci ci yàlla te loo koo ko waxoon ne yow bëggu dem ci yàlla mu mere la kon nañu xam ne taalibe yi dong nga fi ne dara nekku fi ñoo ngi wàcce foofu kàddu yi di wax asalaamualeykum wa rahmatullah alayka salaamullah ya